dellu leenu sant soxna jaara ngir moonu may li tax nu sampi daara xerawlu leenu sant soxna jaara ngir moonu may li tax nu sampi daara bu leen ma tàngam lu bu leen ma tàngal bu leen naxal ndoxum ki leen di tàngal karaw du leen nu sant soxna jaara ngir moonu may tax nu sampi daara bu leen ma tàngam loo bu leen ma tàngal bu leen naxal ndoxum ki leen di tàngal jalantu leen te ubbi seeni nopp ak seeni xol ma ubbi seeni bopp te génne seen bagaani xol te taaten maam jaara waamele ku naan yaabon taw na bawal taw na kajoor ak njaambur bawal a ngaan ku mar ëllëg dob jaambur waaloo ngi wal wali di gental waalo ngir naan ci géeju doomi asta waalo njaara maam jaara ku am jaara neex na waaju naan si farwel jaara maam jaara ma féeru poroxaan na xuut de yoo ñoo ngi detem ba coroxaan gànnaar detem nañu banaan ba mandi yaay mbambulaan sam nu xajul ci xandi ñëpp a ngi mostab ba saalum fuuta futtiku nañu sagen ne maalum yow sa ayub liggéey bi dem na penku dem soo baarakalla lii du faggu yakkal nga waa géeje yakkal waa géeje daanaan nga um nga lambi doomi soxna jigéen ñi soxla lañu yaa doon soxna ndaanaan ke hum nga lambi doomi soxna moo tax jigéen ñi seeni doom ne meŋ juréere ka feeñ yow sa doom ne feŋ moo tax jigéen ñépp seeni doom di xaadam di di yaaram moo tax jigéen ñi doom di yaaram yaa tax jigéen ñépp seeni doom seex budul kon ak yow noo ngi damm bay soox tëkkalel ak jigéen ñi bu sabali xaw naa araam mel na la yàlla ak yaayli tëkkalel ak jigéen ñi bu sabali xaw naa araam mel na yàlla ak yaayli di tudd seeni doom di tudd bamba araam na ngir moom rekk attan ba yow yaa di bu sa bëli ñàkkoo càngaay ndeka nga jog nu jox nay gaay yaa jigéen ñi seeni doom di meng yaa jigéen ñi ñépp yaa jigéen ñi lamasoo ay malfa nuy soli aw sa soom nu jël ba yaa jigéen ñi lamasoo ay malfa nuy soli aw sa soom nu jaar fa jigéen ñi dañ gaar di woddoy soppe góor ñi pii ji baxa yaa suturaal awre yi dindi joote mbakkee nga mel na ndar jabaa ngay juuti laam fa gétti ndar te si ndooni yoon ngu ko waa Tuuba gedeg ci ndoodi laam fa gétti ndar te si ndooni yoon ngu ko waa Tuuba gedeg ci ndoodi jaara maam jaara ku xam jaaraama yaa kawal sa doomaray karama jaaraamaam jaara ku am maqaama yaa kawal keroog bisub qiyaama jaaraamaam jaara ku am ay xar baax yaa kawal sa dooma feeñalug baax jaaraamaam jaara kuy faj aajo yaa kawal sa dooma faj su naajo jaara maam jaara ko am widaaya yaakaar sa dooma am widaaya jaara maam jaara ko am tey junne yaakaar sa dooma jommal jinne jaara maam jaara saarful jiini jox naa la jukkoy rabi di yeemu jum jubal tey jàpp yow tey julli tey jàng tey joxe baleer yi jolli te jikkoy mooy bëgg wa barakaatu. mbooloo mi sëriñ bi sëriñ président ne asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. Cheikh Mouhamadul Mountakha Bachir Khadim Rasoul. nee Cheikh Mouhamadul Mountakha moom Cheikh Mouhamadul Bachir di Khadim Rasoul. nee xalif Sénégal ku murit. nee mi ngi yëkkati kaddu nuyoo ak kaddu siyaare. ne seer boo xam ne am na fum mu waaye amut fu yem. ne di la jottali nuyoo boobu le. yow ju ko jottali sa jëmm ju tedd ji. mboole moom ak mboolem délégation bi ànd ak moom. ne te délégation état bi yëpp. daanaka état bi kenn nee ñoo ñëw tey di la nuyoo indil nuyoo ak siyaare. nee ñëw nag tey ci dëkk bu sell bii dëkk bu tedd bii muy poroxaan nee ñi lay siyaare ak barkeelu si. ni ci liggéey bu rëy bi ngay defalal soxna jaaral mii fi tëdd. muy soxna maam Mariama Jaaratullaahi Buso waaye ñëw na nag ci tey fekkaat la fi tey mu toog fi toogaayu xaadim rasuul ne loolu nag ne day nekk tey lu am solo ne fekk na la Tuuba ñëw siyaare si sa mag ju tedd ji jiitu Cheikh Sidil Maxtaar Mbakke yal na yàlla yokk leeram ne ñëw na tey nag sa fii ci Poroxaan di Serigne Touba ngay Serigne Touba ne mu fekk si fi ne ñëw di la feddali sunu wëllëre sunu taalibe fonk gim ñu fonk ne ko fonk mu xam ko. ak sunu yéene. jàppale la ci liggéey bii la Serigne Touba jox. muy naal yu baax yi sa mag ji bàyyi woon. nga war koo mottali. te xel yépp ne dal nañu ci de. ak sa naalu bopp nga xam ni. yaa ko fas yéene yëkkati ci mission bi la yàlla dénk Serigne Touba dénk la ko ne bu dina xamal ne naal yooyu nag ne fas yéene na en tant que président de la république ne na ko doon defee ak sa mag yi jiitu ne fas yéene na loo yëkkati te na ni loo yëkkati lu ne. ne diine rek la yoonu sëñ Tuubaa la taalibe yi la ne kon askan wi la ne loo yëkkatilu ne fas yéene nañ laa gunge ci loolu kéem kattanu nguur gi ne dégg nañu sa kaddu nag ci yéene ji nga am ci Tuubaa ci bërëbu jàngukaay yi yoo xam ne yu mag lay doon lu am solo lay doon ndax xam nga ni njàng mi ñu jéggaani bitim réew day ànd ak léeg-léeg ay jafe-jafe ne léeg-léeg day bari lu ciy rax ne day faral di wax Sénégal fu lislaam def lépp junniyaat soxlaatuñ di jëggaati leneen. daara kon daara ju mag jooju ci Touba. ñëpp war nañ cee jàpp. mooy xam ngay taalibe. mooy xam war nga dugal sa loxo. war nga dugal sa loxo. ci yéene bi sëriñ bi am. ndax ñu mën ko sottal ci anam yu gën a rafet. loolu kat bu sottee. waxul tey. waaye lislaamu ëllëgu Sénégal. daañu ko gën a aar la ko mag nga doon aare démb ne kon daara ju mag jooju le def na rek nga wax ko ko la la ci bëgg ak na ko bëggee ne ñu ju jublu ci ne fii ci Porokhane nag yàgg nga yéene jumaa ji yaa ko liggéey yaa njaboot gi kon ñun mënuñu kat lulul ki si am yéene ak barkeelu ñëw ba joxe barkeelu gi loolu daañu ko def daañu sant ñii mu ànd ak mu jaboote leen ñu def ko ndax da ngeen a yàgg sumb liggéey bi te du ngeen xaar kenn ci liggéey kon loolu daañ ci def sunu barkeelu mu des dëkk bi dëkk bi nee wax nañ ko. nee keroog yónni nga ko Cheikh Mamadou mu wan nu yitte yi ak jafe-jafe yi fi am wàllu xur yi mooy tere dëkk bi yaatu. nee kon war nañu poroxaan taxawal ko plan directeur urbanisme bu bees boo ni. pare sax laata ñu koy pare sax. am na ay dëkkuwaay. am na ay dëkkuwaay. ak ay programme yoo xam ne Sow dana ci ñëwaat léegi. yépp ñu tàmbali ko. waaye ne am na programme bu mu ci gis dana ci waxtaan ak yow. bu ñu paree. ngir indi ci. taxawaayu nguur gi. ne li des nag mi ngi lay feddali yaakaaram ne xam na sa yéene ne wane nga ko lu jiitu tey ne ba mu ñëw dina fekk njaareem ci fulk bi ne loolu yàgg na te saa yu ñu gisee la ñu a gis mooy sa banneex wane cofeel ak di ñaan ne kon tey bu la yàlla defee Serigne Touba ne kon suñu xel mën naa dal waaye ñun buñ diise diisee soxla ne suñu soxla du lenn nag lu muy jëmale réew mi kanam ak naa li ñu yàlla jàpp la ci ci barkeb sëriñ Touba ñu yëggale liggéey bépp ne leneen nekk soxlaam ne kon loolu yaakaar na ni. buñ la ko ñaan see fii lee am na ci rafet njort ci gàttal daal ñëw nañ siyaare si la lépp loo xam ne yëkkati nga ko ne bu ko yëgee daañ ci taxaw taxawaay bu rafet ñu ngi lay sant di sant na njabootu Serigne Touba fi nekk yépp ne di sant porte nga tànn ko tànn sa jëwriñ tànn kilifa yëpp ñu fas yéene ni ko bëggee rek ñu doxale ko noonu insaara bi daana ko doxale noonu ne tey nag ñëw na poroxaan siyaare si sàkku siit ñaan ne yóbbu nañ ko ci barab bi léegi ne na ko daa defee noonu la ko defee rek ne soxna maam jaara moom ne kuy wax ku liggéeyal diine. ne jigéen ñëpp mën nañoo jël royukaay. ne tey daara ji fi ne. ñu dafay def école formation professionnelle. maanaam bu ñu leen jàngalee diine ba noppi. jàngalee nit lu ñu mën a liggéeyee. ne loolu itam taxaw na ci. incha bi ne li ci def nag. ne ginnaaw bu toogee ak yow ne dana ko mottaleeg yow ne mi ngi sant kilifa yi fi toog yépp sëriñ maam Thierno Mbakke ak kilifa yi fi nekk yépp ne bugg te lim di juum waaye bu sëñ bi Cheikh Amadou buñ la tuddee tudd nañ njaboot gi yépp ndax murit liñ ko xamee mooy yar ak jëfe ndigal ne ni nga toogee nii yaakaar na dañ ñëwoon mu ñëw nuyu la siyaare la rek nuyu njaboot gi yépp ne kàddu yooyu rek la bëggoon a yëkkati ne li ci dëng nag mi ngi koy jéggulu waaye yéene bi nag moom moo ëpp li ne ci xol yi mën na wax na moo li ne ci xolam lépp wax na ko ne Mbàkke yàlla na ay gi yàgg lool yàlla may la wér te nga mottali lépp Mbàkke yal ko yàlla def ne jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ci ndigalul cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké. ibnu cheikh Mouhamadul Bachir. mi nga xam ne tey ci dogalub yàlla. moom la sunu borom tànn. def ko muy jëmmi Serigne Touba. ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér. ndax sunu boroom dafa wax ci alquran ne. allahu. allahu aclamu xaysu yajcalu risalatihi. waxaat ne summa jacalnaakum. summa jacalnaakum xalaa'ifa fi l ardi. min bacdihim linanzura kayfa tacmaluun xam na loolu. te sëriñ bi xam na loolu. kon ñoo ngi koy ñaanal. mu yàgg fi lool. te ànd ak wér. te li mu bëgg a liggéeyal sëriñ Touba. sunu boroom may ko kattan. akuk wér. ba lépp mu mottali ko. danaa ci dellusiwaat. muy yóbbante am nuyoo. ci ganam gi. di président de la république. Macky Sall. ñëw fi tey. ñëw fi siyaare si ko. ngir yaari anam. ngir ñëw fi siyaare si ko ngir jiite gi mu jiite réew mi. waaye ñëw fi siyaare si ko ngir yeesal taalibeem. waaye ñëw fi ak taalibeem. ndax sëriñ bi wax na ne. yeesal na ci sëriñ bi wax na ne yeesal na ci moom ak taalibeem. def def na itam li taalibe yëpp di def ci moom. kon mi ngi koy nuyu bu baax. di nuyu ñu mu àndal. te bu ñu tëddee Mouhamadou Dionne premier ministre. mi nga xam ne ci njabootu sëriñ bi la bokk. tudd ci Aly Ngouille Ndiaye. moom it bokk ci njabootu sëriñ bi. yooyu yëpp di ay boole yu leen sunu borom boole. ak ñi ci des ñëpp. su ma xasee tudd ñooñu rek tudd naa ñëpp. sëriñ bi nee na mi ngi lay nuyu bu baax. di rafet lu itam dikk gi nga fi dikk. ndax nee na sa digg ak moom. lu yàgg la yàlla def na ak cofeel. digg sa digg ak moom. go cofeel goo xam ne ñëpp xam nañu ko. te ni ma ko waxee ci làmmiñam itam. fa su ma ko yéenee weesu. ndax kilifa kenn du ko yokkal ay waxam. ndax kilifa kenn du ko yokkal ay waxam. la mu tànn ba wax ko rek. ndax la mu tànn ba wax ko rek. loo yéene lu ko ëpp itam. loo yéene lu ko ëpp itam. loola ca la njëriñ nekk. lam ba wax ko ca la njëriñ nekk. mu wax ma ne ma. mu wax ma ne ma. mi ngi lay xamal ne la. mi ngi lay xamal ne la. li la suñu borom boole ak moom. li la suñu borom boole ak moom. ci jamono. ci jamono. xam na ko bu baax. xam na ko bu baax. nee na cofeel gi leen na cofeel gi leen yàlla boole itam. xam na ko bu baax. xam mu wax ma ne ma. mu wax ma ne ma. yemul ci cofeel gi sax. yemul ci cofeel gi sax. waaye dafa am ñeewante ci waaye moom dafa am ak ñeewante ci yow. baat boobu boobu noonu la ko génnee. nee na itam mi ngi lay ñaanal bu baax. li nga xam ne sag bëgg. li nga xam ne sag bëgg la. sunu boroom dimbali la ci. barab bii nga ko fekk itam. te barab bii nga ko fekk itam. barabu sàkku barabu sàkku ñaan la. ndax Serigne Touba. ndax sëriñ Touba. moo waxoon ne ku fi ñëw. moo waxoon ne ku fi ñëw. boo fi nee jàng. ma fekk la fi. ma fekk la fi. mbaa nga fekk ma fi. nga fekk ma fi. mi ngi lay sant bu baax. kon noo ngi lay mi ngi lay sant bu baax. nee na yéene ji nga am ci moom itam. nee na yéene ji nga am ci moom itam. te daa te daa ko feeñal jëkk lii. xam na ko xam na ko. yéen ji nga xam ne yaa ngi koy jëf ci dëkk bi. yéen ji nga xam ne yaa ngi koy jëf ci dëkk bi itam. jox na ndigal ki yor liggéey bi. jox na ndigal ki yor liggéey bi. moo ko te moo ko waxal boppam. danañ ko génne. ko génne. wane ko ba ñëpp gis ko. ba ñëpp gis ko. loolu itam. loolu itam. li mu ci jublu rek. mooy du mooy moom du sakk jëf. lu ko waay defal dana ko xam. lu ko waay defal itam dana ko xam. kon mi ngi lay sant bu baax. di la gërëm ci loolu. gërëm ci loolu. moom mii nag. moom mii nag. suñu borom dafa def. suñu borom dafa def. bëggul sax ku seere ci moom. bëggul sax ku ci moom. ndax ni mu dëddoo àddina ndax ni mu dëddoo àddina moo tax. ndax dafa xam àddina. ndax dafa xam àddina. waaye na da koo sànni. waaye itam da koo sànni. boo ko xamut. ba boo ko xamul. da ngay jàpp ne da koo da koo xamul. te loolu. te loolu. mooy ni Serigne Touba meloon. mooy ni Serigne Touba meloon. Serigne Souhaïbou bu mas naa nettali bu mas naa nettali ne. Serigne Touba nee na. Serigne Touba nee na. addina dama koo jël. addina dama koo jël. teg ko ci sama pekkul baaraam. teg ko ci sama pekkul baaraam. xool ko ci biir ba ci biti. xool ko ci biir ba ci biti. ma xool ko dara amu ci njëriñ. ma xool ko dara amu ci njëriñ. sànni ko ma sànni ko. waaye noonu laa ko xamee. waaye noonu laa ko xamee. moom mii nag. loolu la ko yàlla defal. loolu la ko yàlla defal. boo ko boo ko nee. yàlla na nga gudd fan. na nga gudd fan. du la tontu du la tontu. boo ko nee. boo ko nee. yàlla am ngërëmu Serigne Touba. yàlla na nga am ngërëmul sëriñ Touba. mu ne la amiin. kon foofu la nekk. kon foofu la nekk. loolu Cheikh Abdoul Ahad. loolu Cheikh Abdoul Ahad. képp lañ gisoon mu daa doxe noonu. képp lañu gisoon mu daa doxe noonu. moom itam noonu la ko yàlla melal. moom moom mii itam noonu la ko yàlla melal. muy jëmm joo xam ne itam. muy jëmm joo xam ne itam. moom laa gis ci ku bëgg cërub àdduna. moom laa gis ci ku bëggul cërub àddina. ndax naga ni daaw. ndax naga daaw. fii ci cérémonie officielle. fii ci cérémonie officielle bi. ña ko teewoon ñëpp a ngi ñëpp ñu ngi fi toog. muy ñaanal seex Sidi Mokhtar. muy ñaanal Cheikh Sidi Mokhtar. di wax yéeneem ci moom. di wax yéeneem ci moom. ba wax ne. ba wax ne. bu ma ko mënoon. su ma ko mënoon. dindi samaw fan. ma dindi samaw fan. jox ko jox ko. foofa la yéene mën a. foofii la yéene mën a yem. ma dund ci seen diggante ñoom ñaar. mu mu dund seen diggante ñoom ñaar. ma dund ci seen diggante. ma ma dund ci seen diggante ñoom ñaar. loo mën loo xam ne mën naa koo seere. ndax Cheikh Sidi Moukhtar. ndax Cheikh Sidi Moukhtar. ku bëggoon sëriñ bi la. ku bëggoon sëriñ bi la. te doyloo ko. wax na ci moom yaari ndax wax na ci moom yaari yëf. dafa waxoon ne. dafa waxoon ne. képp ku yëkkati addiya. képp ku yëkkati addiya. war koo jox Serigne Touba. war koo jox Serigne Touba. bu ko joxee Cheikh Mouhamadul Mountakha. bu ko joxee Cheikh Mouhamadul Mountakha. tege na ci loxo Serigne Touba. na ci loxoy Serigne Touba. dégg naa ci làmmiñam itam. dégg naa ci làmmiñam itam. mu wax ne bu sañoon. mu wax ne bu sañoon. moo koy taxaw moo koy taxaw kon yàlla defal na ko. kon yàlla defal na ko ko. kon loolu yéene mënu koo weesu. kon loolu yéene mënu koo weesu. loolu nag ci jëfam la. loolu nag ci jëfam la. ndax moom danaa wax ne. ndax moom danaa wax ne. sama kilifa. sama kilifa. dama koy bàyyee sama bopp. dama koy bàyyee sama bopp. bàyyi ko ak boppam. noonu la defoon ak magam ja. noonu la defoon ak magam ja. Cheikh Mouhamadul Moustapha. Cheikh Mouhamadul Moustapha. ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir. ibnu Cheikh ànd ak moom ca noona. ànd ak topp ci ginnaawam. topp ci bëgg. amulu bëgg. amatul bañ. bañ. lu sëriñ bi bëgg rek. lu sëriñ bi bëgg rek. wala lu mu xool. loola la xool. wala lu mu samp rek. mu suuxat loola. moom nii la dundee ak moom. ba àddina sépp seere ko. ba àddina sépp seere ko. ba mu laq ay ngërëmam. ba mu laq ay ngërëmam. bi fi Cheikh Saliou Mbacke nekkee. bi fi Cheikh Saliou Mbacke nekkee. seen diggante. seen diggante. ñëpp xam nañu ko. ñëpp xam nañu ko. ndax bi fi Cheikh Mouhamadul Mourtada bàyyi ko. ndax bi fi Cheikh Mouhamadul Mourtada bàyyi ko. dafa joxe ndigal li. Serigne Saliou dafa joxe ndigal li. lépp ne. lépp wax ne. lépp loo xam ne. lépp loo xam ne. Serigne Mourtada daana ko taxawee. Cheikh Mouhamadul Mourtada daana ko taxawee. ko ci loxoom. tegaat na ko ci loxoom. kon loolu junju bu rëy la woon. ndax wuutu doomu Serigne Touba yombul. ndax wuutu doomi sëriñ Touba yombul. rawatina Serigne Touba def ko. rawatina Serigne Touba def ko. kon ci loolu. kon ci loolu. Euh, noonu la ànde woon ak ñoom. noonu la ànde ak ñoom. Euh, bi fi Serigne Saliou Mbacke bàyyi ko. bi fi Serigne Saliou Mbacke bàyyi ko. xel yëpp gëlëm. xel yëpp gëlëm. mu dellu ca cheikh Mouha Serigne Touba waxoon cheikh Mouhamadul Bachir. mu dellu ca la Serigne Touba waxoon cheikh Mouhamadul Bachir. li mu ko santoon ci lijjanti mbir li mu santoon cheikh Mouhamadul Bachir ci lijjanti mbir yoon wi. Serigne Bachir waxoon Serigne Moustapha Bachir te Serigne Bachir waxoon Serigne Moustapha Bachir ne ko. maa ngi yéen dañoo bokkut jamono. maa ngi yéen dañoo bokkut jamono. ndax yéen. ndax yéen ndax man ndax man. doomi Serigne Touba yi ñi ma ci mag bëriwul. doomi Serigne Touba yi ñi ma ci mag bëriwul. ñëpp maay seen ñi ci des ñëpp maay seen kilifa. yéen nag seen jamono. yéen nag seen jamono. dangeen di bari ay kilifa. da ngeen di bari ay kilifa. ndax ñi leen di mag ndax ñi leen di mag dañuy bari. su boobaa nag. su boobaa nag. digal naa leen. digal naa leen. na ngeen di fexe bay jëf. na ngeen di fexe bay jëf. loo ñëpp lañ ci roy. loo xam ne ñëpp danañu danañ seen danañu seen roy. mu laxasaayu nag. mu laxasaayu nag. ànd ak sëñ Cheikh Mouhamadou Baara. def ko Serigne Touba. def ko muy Serigne Touba. ñëpp ànd ca ak moom. ñëpp ànd ca ak mu taxawu ko. mu taxawu ko. balaax ngërëmam. balaax ngërëmam. bi mu tabaxee jumaay daarul minan. bi tabaxee jumaay daarul minan. ba ba noppi. dafa jël juróom-ñaar fukki juróom-ñaar fukki million ak juróom. jël juróom-ñaar fukki million ak juróom. ne mooy ati Cheikh Mouhamadul Bachir. def ko ak njotu. boole ko ak jumaa ji jébbalaat ko ko ko ak dellusiwaat jarul dellusiwaat. Cheikh Sidil Mokhtar. Cheikh Sidil Mokhtar. liggéey bu ma mës a woote. liggéey bu ma mës woote. joxe na ci lu ëpp téeméeri million. joxe na ci lu ëpp téeméeri million. bokkul ak addiya yi dem waxtu wu nekk. te bokkul ak addiya yi dem waxtu wu nekk. kon moom. kon moom. li ko waroon ci kilifaam. li ko waroon ci ay kilifaam. lépp matal na ko. na ko. moo tax itam. moo tax itam. yoon wépp. yoon wépp. maase nañu. maase nañu. def wenn say. def wenn say. ngir fay ko bor boobu nga xam ne. ngir fay ko bor boobu yi nga xam ne. ñëpp la ko lebal. ñëpp la ko lebal. defal ko Serigne Touba ko Serigne Touba. muy loo xam ne nag muy loo xam ne nag. dafa tabbi ci pàggute fi Serigne bi. dafa tabbi ci pàggute fi sëriñ bi. ndax Serigne Touba. ndax Serigne Touba. dafa ñaan waccaal xuluubana waccaal dafa ñaan wax ne waccaal xuluubana ala tawaadudi ala tawaadudi bila tanaasuin bila tanaasuin wala taxaasudi wala taxaasudi wala taxaasumin wala taxaasumin wala tadaaburi wala tabaaxudin wala tabaaxudin wala tanaafuri wala tanaafuri xata nasira xata nasira muslimina xaashiin wa muminina muxlisina saalihin kon loolu kon loolu Serigne Touba da koo faggu. Serigne Touba da koo faggu. mu feeñ ci biirum njabootam. mu feeñ ci biirum njabootam. mooy wa yuusiruuna ala anfusihim. mooy wa yuusiruuna ala anfusihim. walaw kaana bihim xasaasa. walaw kaana bihim xasaasa. danaa ci nettali benn benn eh, njàngale mu yéeme. danaa ci nettali menn njàngale mu yéeme. ci diggante njabootu Serigne Touba gi. ci dig ci diggante njabootu Serigne Touba gi. Cheikh Mahamadul Fadil. Cheikh Mahamadul Fadil. dafa ñëw di siyaare si Cheikh Mahamadul Bachir. dafa ñëw di siyaare ji Cheikh Mouhamadul Bachir. fekk muy deyaale boromam. fekk Cheikh Mouhamadul Bachir di deyaale ak boromam. ñu wéet tëju. ñu wéet tëju. mu wéet tëju mu wéet tëju. mu agsi ki ne ci bunt bi. mu agsi ki ne ci buntu bi. mu laaj ko ana sëriñ bi. mu laaj ko ne ko ana sëriñ bi. mu ne ko dafay wéet ak boromam. mu ne ko bi dafay wéet ak boromam. mu nar koo fëgg. mu nar koo fëgg. Cheikh Mouhamadul Fadil ne ko. Cheikh Mouhamadul Fadil ne ko. Eh, doomi Serigne Touba kenn du ko fëgg. Eh, Cheikh Mahmadul Fadil ne ko doomi Serigne Touba kenn du ko fëgg. daal di daal dem. daal di dem. bi Cheikh Mahmadul Bachir génnee. bi Cheikh Mahmadul génnee. Eh, kam fa tegoon xamal ko ne. kam fa tegoon xamal ko ne ko. Cheikh Mahmadul Fadil ñëwoon na fi. Cheikh Mahmadul Fadil ñëwoon na fi. mu ne ko loo ko wax. mu ne ko loo ko wax. mu ne dama tëju. mu ne ko dama ko wax ne ko da ngaa tëju. mu ne ko. mu ne ko. indi samay caabi. mu ne ko indi samay caabi. ndax kuy tëju doomi sëñ Tuubaa. ndax kuy tëju doomi sëñ Tuubaa. doo yor samay caabi. doo yor samay caabi. waaye tàggoog moom. daal di tàggoog moom. kon ñoom loolu la suñu borom defoon ci seen biir. kon ñoom loolu la suñu defoon ci seen diggante. sëriñ bi dund ko. te sëriñ bi dund ko. ak njabootam gépp ak njabootam gépp. ñu ngi koy kon ñoo ngi koy ñaanal. mu yàgg lool te ànd ak wér. yàgg lool te ànd ak wér. li mu bëgg liggéeyal Serigne Touba. ba li mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba. sunu borom may ko kattan ak wér. ba lépp mu mottali ba lépp mu mottali ko. wax na ma ci biir waxam nag. wax na ma nag ci biir waxam. ne ma yéen ñaar seen diggante. ne ma yéen ñaar seen diggante. adduna ak àllaaxira. addina ak àllaaxira. lu ci ne dafa am lu suñu borom wax. lu ci ne dafa am lu ci suñu borom wax. muy maslaxa mi ci war. muy maslaxa mi ci war. nee na suñu borom da ko dénk. nee na suñu borom da koo dénk. mbirum àllaaxira. mbirum àllaaxira. di di ëllëg. muy abdan aataynaahu. muy abdan aataynaahu. rahmatan min indina. rahmatan min indina. wa allamnaahu min ladunnaa ilman. wa allamnaahu min ladunnaa ilman. yow itam mu dénk la wàllug adduna. yow itam mu dénk la wàllug addina. mooy innaa makkannaa lahu. mooy innaa makkannaa lahu. fil ardi. fil ardi. wa aataynaahu. wa aataynaahu. kulli shay'in sababan. min kulli mu dénk la wàllug addina gi. mu dénk la gi. mu ne kon dajale gi leen suñu dajale. jamono mu ne kon yéen ñaar dajale gi leen suñu borom dajale. addina jamono. nee na loolu dafa am lu suñu borom junj. nee na loolu dafa am lu ci suñu borom junj. noonu la ma ko waxee ci làmmiñam. noonu la ma ko sëriñ bi waxee ci làmmiñam. nag man nag duma ma guddal kon. ndax ndax waxtu wi jot na. te bëgguma cee dolliwaat. lim ci wax lim ci wax. lim waxoon na naa ko wax. li ci des nag li ci des nag. su wéetee ak yow. dana la ko leeralal bu baax a baax. ci yéene ji mu am ci yow. ak cofeel gi mu am ci yow. ak jàpp gi mu am ci yow. wasalaamu aleykum. wa rahmatullahi wa barakaatu. takk mbaa kayit fulaayam yaa baaxu tur bu so ca baaxu askan. yàgg nañoo siyaare ngeen ci yoneen yaa rafetub juddu te baaxi waajur ku xañ sey sitiit du julil ngor maam yaa gàddaaya jëree ki tooro diine goree te juboog lam tooro museefu leena jiitu cig wilaaya mbaal quraan maa xam-xamab diraaya ñu fuukaree mbirum waliyu ngi ay sërif ñooy dooni xaliyu ba maanema lii sama ndaayab jant fenk ca maam mañ tudde ma maram daa leer gi bawam bu soobe suuxi mbàkke royaat